إني أخاذب النصارى ترى في أرضهم لمالك إني أخاذب النصارى billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi fii ci guddi xasida bi nga xam ne moom la ñuy amal at mu jot fii ci Fiera Malpensa tey nag ñu am mbégte mu rëy rëy toog ak suñu ñaari soxna yi ñu bëgg see indi tuuti rek seen ay ay ay ay waxtaan yu ndaw ñu doog a soxna Amsatou Sylla ak soxna maam Diarra Thiam Baye Fall kon dañuy bàyyi soxna Amsatou rek euh, mu nuyoo bisimilah soxna Amsatou ñoo ngi leen nuyu. ñoo ngi leen di fay auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim sallallahu taala wa mawlana muhammadin wa yaa xayra munzilin waxan bi hasbala wa xayra munzilin haba bi basmala صل بتسليم على من فاخ في خلقه وخلق اتفاخا سيدنا محمد والآل وصحبه في الهال والمهال كما بك استهاز من شيطان ونور القلوب كالأوتان وفيه بارك في الصحابة وهاله ومطر الصحابة نيوغي نوي مبوك طالب يب دي جوخ نيوب سين واتشواي دي لن ماغل دي لن زيار نيوم نيوب تي بس بسل بي دي بس مغا خامنتين دانكو جاغلق خاسده يب xamante ni moom daanaka moom moo tënk lépp kon nag euh, maanaam di di leen jox suñuy kàddu ziar rek. kon soxna Diarra ñu bàyyi la nga nuyoo. bisimilah auzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahim ñu ngi leen di nuyu bu baax ci seen tur ak seen sant maa ngi nuyu la maa ngi lay nuyu soxna Fat Bintu di nuyu soxna Amsatu di leen ziar di leen màggal te di leen jox seen wàccuwaay. kon euh, soxna sax yow li ñu lay njëkk a laaj rek mooy lan moo taxoon euh, Serigne Touba bind xasida yi maanaam lan la jublu woon ci xasida yi bi mu koy bind ak coono bi mu ci doon daj lan moo taxoon lan moo ko waraloon. maanaam boo gisee sëñ bi daan bind xasida yi bokk na ci motif yi taxoon mu daan bind xasida yi maanaam ngir saxal yeesal ak yaatalaat li nga xamante ni moo di xam-xam ndax euh, jamono yooyu demoon na ba xam-xam seytaane dafa wàññi lu bëri ñu doon jublu ci xam-xam yi nga xamante ni day lore que xam-xam yi nga xamante ni euh, maanaam xam yu am njëriñ la sëñ bi doon wax euh, yaqulu ahmadu ira sahaada yatul mala bil hilmi wal ibada maanaam man ahmadu maa ngi woote jël engagement di woo bépp mbooloo euh, jëmal leen ci li nga xamante ni moo di yàlla waaye xam-xam bi nag buñ koy wax dañ koy wax maanaam ndax sëñ bi dafa wax ni ci xam-xam la woote te wootewul ci leneen lu dul loolu waaye xam-xam goo xamante ni dañ koy jëfee te ci di ci boole ay teggin ak yiw. Euh, waaw jërëjëf soxna soxna Amsatu mooy li sëñ bi woote ci xasida yi rek mooy euh, xam jàng ak ak euh, yenn yi mu ngi ko def ci sant yàlla sant gum sant suñu borom yenn yi mu ngi ko def ci ay julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waa soxna am satu kon nan la nan la sëñ bi daan soññee ci xam-xam ci ci ci ci xasida yooyu waaw sëñ bi maanaam xasida yi dañ ci dañ ci léppam rek wax dëgg fa yàlla maanaam booy xool diggante xasida alxuraan moom daanaka secret alxuraan moom la jël tibb ko def ko ci biir xasidaam yi te alxuraan ku ne xam na ni euh, bépp xam-xam bu waaye di mën di am rek ma nga sokkee ko ci biir alxuraan kon euh, sëñ bi danaan soññee bu baax dem na ba daan wax ni képp ku réer ma dina mën a gindikoo ci biir euh, xasidaam yi maanaam li nga xamante ni mën nga képp ku réer mën na ci jëlee xam-xam képp koo xamante ni day jàng wala muy jàngale xam-xam tamit bu buy jàng xasidaam yi maanaam dina ci gën a am xam-xam ba dina ànd ak leer goo xamante ni maanaam xam-xam bi daal day sax ci xolam ba dootul bëgg leneen lu dul loolu kon sëñ bi daan soññe ñu ciy ànd ak yiw di ci eh, di ci ànd ak i teggin ndax xam-xam bu amul àndut ak i teggin moom wax dëgg fa yàlla moom eh, maanaam ba pare di di ko jëfee ndax xam-xam buñ dul jëfee moom yaakaar naa ni moom yaa ki ki ki xamul dara yéen a yem ndax xam-xam dañ koy jëfee bu ànd ak teggin ak yiw waaw jërëjëf soxna Amsatu loolu moom mooy am solo sëñ sëñ Tuubaa bi muy eh, bind xasida yi yaakaar naa di soññee ci xam-xam dafa eh, mooy soññee ci li nga xam ne moom lañ suñu borom digal rek ndax eh, dafa wax ne awalu maa awjaba ko rahmaanu xat alal mukallafi imaan nee li nga xam ne moom la moom la yàlla njëkk a njëkk a waral ci ci ci ci jaam bi ci ci mukallaf mooy mu xam ay mm, ak gëm yàlla sumata maarifata maa yusli bi fara idal ayni alayhi fanta bi nee mu xam li nga xam ne mooy yéwénal mbiri diineem ak ak ak ak ak ak sariyaam kon sëñ tubaa lim ñuy jàngal toujours mooy li nga xam ne moom lañ suñu borom di jàngal mooy ñu sàkku xam-xam di jiital ci li nga xam ne mooy ndigali suñu borom yi muy diggante woor aj màkka ak euh, joxe asaka boo xool sëñ foofu yëpp bind ko euh, li nga xam ne moom la. Euh, nit ki war a njëkk a muy sàkku xam-xam bu pare mu digal la julli boo demee nu ñuy nu jullee jàngale na ko jàngale na nu ñuy jàppee jàngale na faratee julli jàngale na sunnee julli jàngale na euh, nu ñuy tiimee jàngale na laab jàngale na nu ñuy ajee màkka jàngale na lépp kon Sëñ Tuubaa daal leen loo xam ne nii rek euh, suñu borom sant nañu ko moom jàngal nañu ko wax nañu ni ñu ko war a defee wax nañu ni ñu ko war a defee kon Euh, buñ ko jàngee pare nag war nañ koo jëfee ndax dafa waxoon ne oman xawaa xilman wala sa yaxmalu fa innahu misla ximaarin yaxmalu koo xam ne nii xam-xam ba pare jëfewoo ko dafa mel ne euh, mbaam mu safi la comme ni ko alxuraan tawraat su ma lam yaxmiluha ka masali ximaarin yaxmilu asfaara ki nga xam ne dañoo làq xam-xam bu bëri ba pare jëfewuñu xam-xam bi ñu ngi mel ne ay mbaam yoo xam sëf ay bagage rek maanaam diisal rek waaye du leen euh, kon buñ sàkku xam-xam ba pare war nañ koy jëfee ah, soxna Amsatu kon ñu wax nga waxal ñu tuuti rek ci diggante eh, xam ak jëfe waaw diggante xam-xam ak jëf rek maanaam comme niñ ko waxee woon sànq rek euh, maanaam nit ki moom mu am xam-xam comme niñ koy waxee rek am xam-xam ba pare te du ko jëfee mook mbaam wala moo ka nga xamante ne xamul dara ñoo yem ndax defe naa ni moom képp ko am xam-xam moom euh, njariñ la mooy dëgg njariñ la dëgg-dëgg mooy di ko jëfee jëf jooju ngi ci ànd ak teggin ak yiw wax dëgg fa yàlla ndax euh, di te ñuy war di jàng xam-xam maanaam yéene gi ñu war a am ci jàng xam-xam nekkul ni euh, dañ ko dañoo war a am yéene gi di ci di jàng xam-xam bi di ci ànd ak gistal wala di ci ànd ak wanew waaye xam-xam buñ koy jàng dañ cee war a gën a xam na lañuy ñuy jaamoo yàlla suñu borom gën a xam suñu digg suñ suñuy wareef ci suñu diine bañ bañ bañ koo jël loo xamante ni maanaam dañuy xam dañuy jàng xam-xam ngir dem di jongante wala jëlee ko loo xamante ni ngistal laag yu demee noonu te maanaam jëf moom yaakaar naa ni moom bu àndut ak xam-xam yàqu-yàqu da cay ànd bépp bépp jëf boo xamante ne am àndut ak xam moom day am dina am yàqu-yàqu. kon ah, lépp lu ñuy jëf rek nañ ci jéem a am xam dëgg la waa Sëñ Tuubaa dafa waxoon ne xam-xam euh, xam-xam moo féete kaw. jëf jëf moo féete kaw xam-xam ndax xam-xam euh munta munta ndax jëf munta bax mukk ta teguwul ci xam-xam te xam-xam it balaa moo am njëriñ faa borom da ko jëfe waaw Serigne Touba jàngal ñu lu bëree bëri boo demee ci nax du xadaa ilhaaji mi ngi fay jàngale wàllu xam-xam di wax ne ngeen di sàkku xam-xam fu ngeen mën di toll di wax ne takun fii kulli yawmin taarika taalluman suma bihimal naasika fal ilmu yuhyi xalba man taalluma yan nafsa kama yajlul ama mune na ngeen ni bul bul bàyyi ben yoon di xam-xam te diko ko te diko ko te diko ko nafar ndax boko ko defee doo ko fàtte daal di wax ne xam-xam kat day leeral xolub ki ki dundu comme ni comme ni ak leer di leeralee bakkan dal di wax ne fan en mu yëf yéexal ba allah ma yu nawir na wahna waaye wax ma wax ne wax lam bi annamaa dafa wata wara nga xam ne bi kat li ñu rawante fil almi wa dini yakun fasbira ci xam-xam ak dini rek fofu lañu ñu fa bi ximaa yëf dul man xas fadala nee na képp ku gën nit ci xam-xam ak diine ci nga ko gënee laa binti saa bii li man xaditala waaye nekkul ci aw askan wu kawe ndax euh, Seydina Aliou karamallahu wacca dafa waxoon ne annaas min jihatil ansaabi wal umu hawaa nit ñi kat ci wàllu askan euh, ñëpp ñoo ci yem ndax euh, aadama mooy seen baay Seydatuna Xawaa mooy seen yaay Sëriñ Tuubaa jàngal ñu ba tey xam-xam ne xam-xam kat da ngeen xam ne lu jafe kenn du am ci ci teggi ba kan kenn du ko am ci xiila xaal kenn du ko am ci dégg naa ak wax nañ nee ndax nee na xam-xam euh, boo nekkee ndaw si nga ko war a sàkku bu nga nekkee ndaw ci ko war a sàkku ndax boo boo dee sàkku nekkee ndaw di sàkku xam-xam dafa mel ne euh, ngay bind si aw xeer wu tooy ñàngu mag mi ngi mel ne ngay bind fekk aw mm, ndox ngay bind ci kawam boo teggee sa loxo rek ndax ma lay dem boo demee si euh, kunkaate man ma fay wax ne fal eh, ilmu la yuxsaa la yuxtaa li man yaxsaa tawa. xam-xam kër kenn duko jox ku ragal wona bal rabbu nas aduna sa ñu xim ndax suñu borom kat ak jaam buy muñ rek mom eh, duko ko neenal daa di wax ne la tastaxil bi rasul israbul wara nee nak yow mi nga xam ne da ngay jang bu wo ndax suñu borom mu rasul la si nga xam ma nga nek ci jadi di saaku xam-xam suñu borom dañuy wax ci alxuraan ne la yastawi la seen yàlla moona wala ñi nga xam ne euh, jànguñu ak ñi jàng duñ mos a yem mukk ndax mi ngi mel ne ku gumba ak kuy gis nee na ku jàng ak ku jàngu ñu ngi mel ne ku gumba ak kuy gis daan na ndax ku gumba ak kuy gis ñoo bokk ñu ne ko déedéet mu ne jàng ak ku jàngul noonu lañ mel kon xam-xam day leeral bakkan comme ni nga xam ne noonu la gumba noonu la ak leer di leerale euh, ci ak lëndam kon kon soxna soxna soxna soxna Amsatu Ah, lan ngay soññ foofu lan ngay soññee foofu ku kuy jàng yan melokaan la war a am. Euh, maanaam kuy sàkku xam-xam moom li ci njëkk te li nga xamante ni ci gën am solo moy ànd ak xolu muñ ak nangoo jàng euh, nangoo yàgg fa ngay jàngee wax dëgg fa yàlla euh, am ci yéene ba pare bañ ngir lu ngir ngir ngir wanewu maanaam lu jëm ci ay walum gistal. bañ bañ a bañ a jàng tamit euh, te bañ ko jëfee dafa dëgg fa yàlla moom ñàngi moom wax dëgg dañ ko war di jëfee kon. waaw jàng moom dafa war a ànd ak jëfe kon soxna am satu jërëjëf ñu lay jaajëfal kon jàng moom ak lu mu bari bari bëri dafa war a ànd ak jëfe ba pare ànd ak ay teggin ab yar ndax ndax. nit ak lu mën a am te àndut ak i teggin amul dara ndax Serigne Touba nee na wax lam bi annal bi kasratil aadaabi fa innaha jaalibatu sawaabi waaw dafa wax ne alaykum bi kasratil aadaabi fa innaha jaalibatu sawaabi maa ngi leen dénk ngeen ngeen am ay teggin ndax mooy xëcc ab yoon ndax fa kasratul ilmi bi xayri adabi jaalibatul illa asa wa taxa bi xam-xam mu bëri bëri da ànd ak ay teggin de da lay xëcc jëmale ci ab coono ak ay lor rek kon xam-xam war fa war a ànd ak ay teggin war naa ànd tamit ak jëfe kon ñu ñëw ci soxna jaara soxna jaara soxna jaara Thiam yow moom li ñu bëgg nga ñëwal ñu ci rek mooy euh, noo gisee euh, jamono ji xale jigéen yi nga xam ne ñu ngi daw jëm ci xasida yi ñii ne mm, ay yaay faal lañ koo ci gis nga naan euh, yaay faal la ndax yaay faal day doog xew wala xewoon na bu yàgg soxna jaara bisimilah barke borom tuuba barkeb màggal gi salaamualeykum wa rahmatulah euh, soxna yi ñu ngi leen di siyaar bu baax di ñaanal sëriñ Sidi Maxtar na fi yàgg lool te ànd ak wér. di ñaanal sëñ Cheikh Jëmb Fall yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di ko ñaanal kilifa diina yëpp di ko ñaanal kilifa aada yëpp. tey jël ziar bi di ko toog teg ci sama loxo borom kër sama sëriñ sab sang mu wasaareel ma ko ci jullit yëpp rawatina mbokk taalibe yi nga xam ne ni moom lañ bokkal Cheikhul Khadim ak Cheikh Ibrahima Fall. waa soxna Faat Bintu danga laaj laaj boo xam ne nii dafa am solo lool muy loo xam ne nii dafa jëm ci mbirum Yaay Fall ndax Yaay Fall dafa am loo xam ne ni dañ ko war a xam te di ko dund muy Yaay Fall du phénomène. ndaxte ñu ngi jël maanaam yaay faal di ko dundee noo xamante ne bii ci jamono ji nga xam ne nii ci lañ toll nii di ko gis maam dañ koo def maa ngi jégalu ci kàddu yi waaye dañ ko def genre buzz nit da koy def ngir wut tur ngir da koy def nit da koy def ngir ngistal waaye da ngay gis nit koo xam ne nii dafay takk njeñ sax waaye njeñam yooyu da lay leer na takku ko njeñ ngir ngir roy maam Ibrahima Fall da ko takk njeñ ngir luk bu bees la ba xew mu bëgg caa roy te loolu lépp booy xool ay jikko yu yàqu la yoo xam te ne bii war nañ ko cee war nañ ko fii dindi ba mu set wecc ndaxte soxna Fat Bintou yaay Fall mooy ki nga xam ne nii moo bàyyi léppam faale yàlla Yaay Fall mooy ki nga xamante ne bii lu mu am baax na lu mu dégg neex na Yaay Fall mooy ki nga xamante ne bii foo ko séen muy def sëq ay tànkam di dox ku yëpp maam Cheikh boo ko gisee dëpp. Yaay Fall mooy jëmm ji nga xamante ne bii sell na sell goo xamante ne bii bu sëqi ay tànkam di dox kuy yëpp mam Seynabou Ndiaye baa nga yëpp soxna Jaara sa boo ko gisee dëpp koo koy jëmm Yaay Fall waaye ana kan mooy Yaay Fall Yaay Fall mooy soxna si nga xamante ne bii moo nekk ci biir këram di tër buy ay way juram ba ay waajuram seedal ko ak taalubeem yaay Fall mooy kan mooy soxna si nga xam ne nii moo nekk ci biir këram di tarbuyu borom këram bu borom këram seedal ko ak taalibeem kooku mooy yaay Fall kooku mooy génn na yaay Fall am garaatu yaay Fall maanaam ci Zahir waaw salaamaaleykum. waaw dëgg la soxna Diarra léeg-léeg euh, dangay gis euh, bu événement yu mel nii amee da gis ne yaay Fall dañuy bëri lool. ba euh, da nga leen di sopp lool te melokaan yi nga xam ne moom lañ mel naw leen ci lool waaye léeg-léeg da ngay dem ba yàgg da nga ci daje kenn da naan est kii mooy ki ma dajaloon ci ca ca ca màggal ga wala ci cant ga maanaam lan lan moo waral lool lan moo tax buñ dikkee ci màggal gi def noonu buñ demaatee seen kër ya delluwaat dañ nekkoon. waaw soxna Fatou Bintou xam nga loolu lépp day dellu si rek ci maam kàddu gi ma njëkk a yëkkatee rek mooy phénomène bi nga xam ne nii jël nañ ko def ko yaay Fall dañ ko def phénomène def ko manam rythme bo xamné ni dañ koy dund ni rek ngir wut ci lug waye mbubb yi ñuy sol ak laxasaay yi ñuy tak manam identification la ci ñun lolu ça n'a rien à voir ak yay fal bi nga xam tini bi mom lañu dund intérieurement ndax ñun bëgguñu ku dul Géraval yaakaaruñu ku dul Géraval gëmuñu ku dul Géraval toppuñu ku dul mom maam suñu mbubb yi ngay sol maam bu la ko mëne misal moy nga mel mu melni tay ji rek cardantene italien bi nga xamni ni mom nga yor di dox ak moom tey carabinieri bu la arrêté li mu lay njëkk laaj mooy document document boobu ngay joxee ni muy wanee ne yow sénégalais nga diw nga tudd diw nga sant résidence nangam nga tudd nga dëkk mbubb yi noonu la mel ci ñun maanaam identification la boo xamante ne bii buñ ko soyee solee dañuy féete ñun fa ñu bokk ku ñu ne jàkk xool rek xam ne ñii ci njabootu Cheikh Ibra lañ bokk kon mbubb yooyu identification la ça n'a rien à voir nag ak yaay fal bi ngay dund intérieurement ndaxte lu ci bëri dama koy wax ci tout tànk yi nga xam te ne bii ñoom laa yor ci dëkk bee ma nekk di Touba di leen nag ñuy au passage ndax ay jàmbaar loolu lañ di tout tànk Touba Toscana dama leen faral di soññi saa yu sonné te soññ boobu sama jëmu ju xeebu ji laa ci laa ciy njëkkee laa ciy tàmbalee muy yaay fal bi nekkul loo xam te ni bi dañ koy dund nii rek romb jëwriñ diw ñu ne ah diw yaay faale na romb jëwriñ dun ñu ne diw de am na taalibe or que wayjur yi nga nekk ci biir kër gi seede luñ la ko ku ci mel ñu ñun ñi nga xam ne dañoo làq borom kër suñuy suñuy borom kër seede ñu ko keneen ku ñuy seedal suñu taalibe ku dul suñuy wayjur ak suñuy borom kër ci bu njëkk maanaam taali googu bu nax nax na saay te dara nag àdduna jarul àllaaxira daray àdduna jarul àllaaxira nit ki lépp lu muy dund war di ko mbubboo rek war na koo dund dund intérieurement ba ñëpp di ko ko seedeel loolu mooy akub taalibe loolu mooy akub yaay faal ñun loolu la ñuy loolu loolu la ñuy dund nag doon ay yaay faalu takk jóg lan mooy yaay faalu tax takk jóg soxna Seynabou soxna Bintu yaay faalu takk jóg mooy yaay faal bi nga xamante ni bii daa noppi ngir lépp joxe boppam joxe nafsam aslantul nafsi lañ wax dañoo joxe suñu bopp moomatuñu bopp suñu bopp ku joxe sa bopp nag moomatoo sa bopp dañuy sol suñu dàll sant nag yàlla ci dëkk bi ñu nekk ndaxte li ñu am dafa rëy li ñu am mooy lan mooy ñun suñu borom daf ñoo def ñu yor beneen couleur boo xam ne nii bokkuñoo nasaraan yi nga xam te ne bii ñaawteef gune ñu ngi koy def nekk ci seen dëkk dèjà ñun couleur bi ñu yor rek ku ñu gis dina xàmmee ne duñu ñoom ñoom duñu ñun suñu borom delluwaat daf ñu ñuy ay jullit gëm rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jóge ci jullit googu mu tànnaat ñu ñu doon ay njabootu cheikh cheikhul xadim waaye jëlaat ñu ci njabootu cheikhul xadim googu ñuy ay bay fall di taalibe maam cheikh ibrahima kon loolu rëy na ci ñun rëy goo xamante ne bii lépp looy def lu nekk rek war nga cee sëpp sa tànk ba nga xam ne nii tey jii Serigne Sidi Makhtar wala tey Serigne Cheikh Jëmb Fall bu la fekkoon nga toog doo yeesalaat sa toogin ñun loolu la ñuy dund te ci loolu la ñuy incarné ay ambassadrice lañ dëkk bi ñu nekk dañ fi liggéeyal Cheikhul Khadim takk suñu daal nag fu ñu woo ñu wuyu ndax ñun maam Charafal moom la ñuy dund moom la ñuy diwoo di ko melañoo di ko béggee di ko sàmm moom la ñuy dund intérieurement waaw ñun Yaay Fall la ñuy dund waaw loolu loolu mooy ju yaay fal ci loolu la ñuy woo ñëpp phénomène bi xew nag bëri na ku ne yaa ngi takk laxasaay takk deru jaalibatu maraaxit takk jër deru nooru daara yi ni takk deru jës bul xula loolu lépp c'est bien boo mais di ko dund bañ dala ko seedal sa biir kër looloo njëkk ndax bay ci say wowu tànk waaw loolu daal la ñuy soññee saa yu su nekk euh, soxna Fatou Bintou Euh, jërëjëf soxna Diarra macha allah am na solo lool am na solo soññe bi am na solo dañuy euh, dellu si waat nga wax rek ne àdduna jëru àllaaxira euh, la Sëriñ Tuubaa waxoon rek ne man bi du jaafa sa yéen dem laa tastari dunyaa bi uxraam yaa fata man baaxa nuuran bi du jaafa sa yéen mhm. bu jëndee sa àdduna àllaaxira ndax ku jaay sa leer jënd ko lëndam di ko réccu mhm. te kon ñu ñu wàññi toppandoo yi gis naa soxna Diarra def na yaay faal naa def yaay faal gis naa mu sol caaya naa sol caaya gis naa mu musóor naa musóoru te li ngay dund li ngay def dara euh, nekkut ci yow maanaam ka tax nga di ko def euh, daanaka euh, moom dë lu dëggul ci moom te yow mi ko toppandoo daanaka da ngaa gis mu def ko rek mu neex la nga def ko loolu moom defe naa ne amul njëriñ ndax sëñ Tuubaa dafa waxoon ne dafa waxoon ne kut xultu waman talaba ridwaanal wara bi suxti rabbi fii fa xumrun soo kara maa ngi wax ne koo xam ne yaa ngi sàkku ngërëmul mbindeef la loo xam ne lii euh, merum sa borom la nee na euh, alkandi rek la lay jural ak euh, mer mu mettee met kon ñu ñu rek ci soxna soxna soxna Amsatu soxna Amsatu yow maanaam looy looy looy wax xale yu jigéen yi nga xam ne ñoom maanaam daw nañ jëm ci xasida yi te te te nanguwuñoo jàng moo xam ne bu événement ñëwee rek dañuy dem gëstu rek ci ci ci YouTube bi daal di euh, def ay exposition te xam xamuñu ndax li ndax li ñu li ñu jël ci YouTube bi ndax lu wér la wala wérul ñu jël ko rek daal koy bind noonu teg ñu génne ko ci télé bi fu nañu wane ko fa waaw loolu leen di wax daal maanaam ñu góor danga nga soññ leen ñu bu baax a baax ñu gën a góorgóorlu ci jàng ndax euh, euh, nga ga nga déglu benn waxtaan rek dem bind ko italien mën naa am bay di xasida yi ni nga xam ne noonu lañ ko war a bindee duñ ko bindee noonu ndax xam nga Euh, bayit bi nga xam ne sëñ Tuubaa da ko bind ak alxuraan nga bëgg koo bind ci ci ci italien daanaka boo ko dee liir na war a liir doo ko liire noonu boo ko dee bind tamit noonu ba pare information yi nga xam ne moom lañu jël ci youtube bi xamuñu wér na xamuñu wérul dañuy dem euh, buñ nee gëstu rek ñu dem jël ci youtube bi rek vidéo bu njëkk a tasee rek moom lañu jël daa koy sotti def ko exposition daal di daal di daal di daal di taf maanaam du du ñëpp sax waaye am na ci da cee bëri da cee bëri ñoo xam ne daal jàngo euh, jànguñu nanguñoo jàng ba pare te te te te te bëgg yooyu daw jëm ci yooyu maanaam loolu leen ni soo ban soññ nga leen di soñ maanaam euh, dañoo nekk ci réew moo xamante ni ah, amaana am na réewum Sénégal sax waaye dañoo nekk ci réew moo xamante ni xasida yi dañ cee jug ndaw ñi dañ cee jug jëm ci maanaam def ko loo xamante ni comme ni ko soxna jaara di waxee niñ jëlee mbirum yaay faal bi jël ko def ko loo xamante ni phénomène loolu lañ jëlee xasida yi def ko def ko genre ngistal bu ñu nekkee ci programme yi fii la ñuy nekk yor seen i xasida di jàng te seeni i kër duñ fa sax tëji benn xasida benn béytu xasida boo leen ko laajee mën nañu la kaa wax amaan dañuy tiim seen xasida rek ngir ngistal nit ñi di leen gis naan soxna si de ma ngay jàng soxna si ma ngay lii ñu ci bëgg ba pare jël xasida yi def ko maanaam foowukaay ndax fi toll nii foo toll da ngay gis dégg ñu naan diw soxna jaalibatul maraaxib diw soxna nuru daaray ni diw soxna mafatul bichri di lim xasida yi noonu ku nekk di jël sa bopp di ko tuddee ci facebook yeeg seen instagram yéeg fu nekk ñu tuddee fa seen bopp tur xasida yi te maan amaana loolu yëpp sëñ bi tax ko woon di bind xasida yi maanaam ba muy bind xasida yi dafa bëggoon ñun ndaw ñi wax dëgg fa yàlla boo boo jëlee comme xas da jaal bëtu maraaxib xamante ni moom day yar ndaw mag sax dalay yar asamaak ndaw kon nag da bindoon ngir muy yar ndaw ñi waaye bind ko ngir ndaw ñu jël ko def ko seen fooykaay fu nekk ñu yóbbu ko fa fu nekk ñu bind ko fa fu nekk ñu ko fay waxtaanee jigéen góor ndaw mag ku ci nekk di tuddee boppam xasida yi dañuy dégg du diw diw diw ñëw tudd tudd tudd bañ ko turee mu sànni ko ni njaay mi daal di wala mu ñëw turee boppam euh, Jóob ma faatul Bichri wala mu ñëw tuddee tuddee boppam géej jaali batul maraaxib xam nga sama genre gi moom noonu lañ noonu noonu lañ fi nekkee wax fa yàlla maanaam xasida yi moom dañ cee war a farlu baax di ci gistu baax ndax amaana moom jàng mi am na solo lool wax dëgg fa yàlla jàng mi am na solo lool tim xasida yi di jàng waaye ñuy jéem a gëstu lan la ci sëñ bi wax ñu koy jëfee loolu moo ci gën a am solo ñuy gëstu xasida yi di xool lan la ci sëñ bi wax ñu koy jëfee koy jëfee ndax li nga wax rek bëri na ñoo xam da ngay gis soxna soxna astu ma fatifal bi si soxna soxna mbiyeen tox fatu bëri na daal bëri na bëri na tur yoo xam ne nii noonu lañuy def ba pare te man euh, da ngay faral di gis euh, euh, ñoo xam ne nii da bokk benn benn léeg-léeg bokk benn groupe boo xam ne dañuy jàng ay xasida da koo xam ne dañuy dugg ay dañuy dugg xasida jaalibatul maraaxib ne bokk naa si wala ñu dugg si groupe boo xam ne dañ fay jàng ma fàttali ko bis wala nuuru daara nii sax ne bokk naa si te boo xoolee jaawatu bu leer mënu koo jàng buñ di joxe lim mu joxe ñaari ñaari ñaari nuuru daara nii wala ñett doy na waar daal maanaam sellal gi nga xam ne moom la ñu ko a sellal ñu xam ne nag ñu xam ne ki nga xam ne moo jàng benn jawartu mu leer naññ mu sellal ko moo gën ki nga xam ne wax na jàng na fukki noori ni te la yàlla xam doy na kon daal sellal gi war nañ koo xool bu baax baax baax ñu jéem a njàng mi di xool ni ko li nga xam ne moom la sëñ bi bëgg def ñu noonu na sëñ bi bëggoon ñu jàng ko xasee daal ñu jàng ko noonu te moytu yu bëree bëri ndax ndax lim bu bëri bi tamit amul njariñ na sell rek na sell ndax euh, ni nga ko ni ko comme ni ñu waxee waxee ci alxuraan rek nga jàng benn aaya te seetloo ko moo gën nga wàccee kaamil bi yëpp kon ñu xam ne jàng xasida bu ndaw ak jàng xasida bu mag yëpp benn xasida boo ci ja boo ci jàpp te seetlal ko bu yàggee nga gis njariñ la kon euh, soxna jaara nga soññ gone gone yi bu baax a baax rek ci euh, ci ci ci xasida yi ak li nga xam ne moom noonu lañ dogtee jamono yi ci xasida yi bisimilah barke borom Touba soxna Fat Bintou waa xanaa dañuy dellu si waat rek ci wax ji nga xam ne nii moom lañu waxoon rek akub taalibe ndaxte kenn mënul sàkku lenn ci sëñ bi rek te jiitaloo ci ak yar akub taalibe ndax ku yaruwul doo tekki dara yar akub taalibe ci lañ ci la ñuy ñun ñun de ñun de ci la ñu yar ci la ñu te moom la ñuy sàkku it di ñaan ku tedd ki nangul ñu suñu taalibe nangul ñu suñu njébbal te nangul ñu suñu liggéey te ñaanuñu yàlla nag benn yoon di ci gis suñu bopp xeebuñu ci fistin bi waaye nawuñu ci million nawuñu ci million nawuñu ci milliard ñun dañuy tàmbalee ci sëñ bi rek yem ci sëñ bi te loolu dara waru ko it lu dul bëgg akub topp ndax bëgg akub topp day mooy indi lu ne te ku bëgg di topp bu yàggee di nga dégg te ku dégg di nga jëfe te loolu mooy kàddu yi nga xam ne nii ci la ñuy soññ tànk di ci soññ suñ jëmm yi saay su nekk ndax ñu nit matuñu ay ndaw lañ dëgg la ci yoon wi la ñu judd ndax ku ne kuñ na tuf ku ci mel ni man na soxna jaara bàyyam wàccoon na moom jur na la fam la war a juree tudde la tur wu sell la ca des nag jaayante lay doon waaye ndey euh, xale yi nga gis léegi nii euh, soxna Fat Bintou dañuy yàq seen liggéeyu way jur ndax da gis way jur boo xam ne nii tarbina tarbiyoo na borom kër lool borom këram lool tarbiyu sëriñam lool ne ci ndigal bàyyi tere saay su nekk waaye da doom yi dañuy ñëw yor melokaan woo xam te ne bii fu ñu fu ñu jaar sikk seen ndey te fekk na seen ndey lan leen waroon lépp def nañ ko ci ñoom loolu nag boo déggee boo gisee muy am maanaam dañoo nekk ci ahrul zaman arul zaman moom mooy mujjug jamono xetuk ñaawteef gépp fii lay xewe waaye nag bu fekkente ne tënku nañ ci li nga xam ne nii moom la ñu ko tedd ki digal wax dëgg yàlla dey dinañ gis yoon te duñu réer ndaxte lu ci li soxna Amsatu wax rek xasida yaa ngi fi di suñuy ay référence képp ku dem ba xamatoo foo jëm boo dëppee daj ci xasida yi di nga xam yoon wa ngay jaar ndaxte bu njëkk euh, mag ñi dañ daan jël seeni doom yóbbu leen ci daara ja di leen tarbiya di leen jàngal diine di leen jàngal xam maanaam di leen tarbiya carrément du toj seen xol tey ji exemple bi ma lay jox mooy ñun ñi nga xam te ne bi ñoo nekk Europe di fi vivre soxna Fat bintu maanaam ñun Pastef googu suñuy wayjur amoon ci ñun am ko ci suñuy mag am ko ci suñuy wayjur ñoom ñun amatuñ ko ci suñu ay doom ndaxte doom yi ci bëri fii ci Europe bi la ñuy juddoo te bu ñu juddoo ci dëkk bi li ngay njëkk def mooy jéem a garder sa doom jàngal ko nasaraan bi dugal ko otol école nasaraan bi te lañ lay njëkk jàngal mooy xam nga say droit du la droit de l'homme lañ lay njëkk daan jàngal te ñoom seen droit de l'homme ak droit de l'homme bi ñu Cheikh Ibra jàngal ça fait deux ñun ak taalibe la ñu jàngal te mooy suñu droit de l'homme ci loolu la ñuy roy kon xam nga ne doom yooyu ñun jëlatu leen jëlatuñ leen di leen yóbbu daara ñuy ñuy tarbiyu kenn tarbiyu kenn tarbiyatu leen ñoom Europe la ñuy juddoo di fi màggee di fi di def li tubaab yi di def kon tey ji ku ci jaww jàmman lekk xasde bi nga xam te ni mi mooy jaalibatu maraaxib nga xam ne nii li soxna Amsatou wax day defar sax mag waxuma laa boo ci boo ci toogee di ci di ko jàng di nga dem ba yaay gën a jubub yoon ndaxte dafa mel ni xasde gi boo xoolee danga naan sëñ bi da koy doog a bind ndax maa maa ngi jéglu ci kàddu gu bés bés bi mu am xas dëgg dafa mel ne xas dëggu yees la gu ñuy doog a bind waaye siñ bi xas gu mu bind rek ak jamono ji nga xam ne nii ci lay wàcce xasida gi jamono ji la ko suñu borom sàkk woon mooy taxaw taxawaayu sëriñ daara taxaw taxawaayu sëriñ tarbiya di tarbiya xale yi léegi da ngay reer ba suur toog sa sa biir saal yor sa xasida jaalimatu maraxib di ko jàng yaay gën a jub ka nga xam ne moom lañ tarbiya ca daara ja loolu xanaa chance mënu ko weesu loolu chance mënu ko weesu nga tawat tawat bu la mënti dal nga nga jàng mat la bu sifaay sax aaja faju loolu kay xanaa jàmm mënu ko weesu ku ci mel ni tux fatu ana ana lu mu mënul faj ana bën buntu xéewal la mënta tijji kon ñun Cheikhul Khadim wàccoo na ak ñun li ñu war a def mooy gën a góorgóorlu soxna yi te xam ne ñun dañ ñoo sas te sas bi mooy lan mooy jigéen mooy mooy mooy mooy mooy lépp ci àdduna jigéen mooy defar jigéen mooy société nañ gën a yeesal suñu jëm yi di muur suñu cër yi di am ak bi te di ko sàkku te bañ cee gis suñu bopp ngir ëllëg suñu njaboot gi mën a roy si ñun bu ñu faatoo ñu mën ñoo ñaanal waaye ku ci xiir sa njaboot ci leneen boo faatoo ci loolu la lay kon nag soxna si loolu daal mooy soññe yi waaw di wax rek nag bég nañ lool ci teewaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, jërëjëf soxna Diarra kàddu di am na solo lool kon gone yi ñoo ko déggandoo ngeen góorgóorlu bu baax rek ci njàng bi jàng moom defe naa ne na ji euh, jafeetut ku bëgg a jàng whatsapp bi mën nga ciy jàng ba semaine bi yëpp bu dimanche nga dem ci lay jàngal tari waye nangu wo jang pare bëgg am xam-xam mom du du du mën nek kon da ñu gor bu baax baax ci jang mi kon soxna am sa ñu jox la nga taggo rek. di jital ci taggo bi yow mi soxna. Euh, soxna soxna Fatou ak soxna jaara nga xamanteni mom da di sama mag di sama lepp di sama kay tek ci di taggu bepp mbop ko julit bo xamanteni mi ngi teew fii ci bisu xasida yi euh, di tàggu ñu nga xamante ni ñoo jël seen temps di déglu li nga xamante ni mooy kàddu bi nga xamante ni amaana moom xamuñu dara dañuy jéem rek wax dëgg fa yàlla te tëlee lool lool sax wax tëlee wax lool kon xanaa ñuy dellu di sant rek tey soññee bu baax ci lépp luñ fi jot a wax rek ñu xam ni rek lu ci jub moom sëñ bee lu ci jubadi rek ñun ñii la suñu ñàkk ma matadi rek. soxna Diarra kon nga tàggoo. na lépp rek waaw di sant rek tey gën a soññee ci xas yi rek nañuy durus rek bëgg sëñ bi rek yem ci képp ndax xol boo xam te ne bii day bëgg sëñ bamba bëgg mbërub làmb bëgg sëñ bamba bëgg kat bëgg sëñ bamba bëgg waykat boobu xol sëriñ bamba xaju ci sëñ bamba da nga koy wóorlu rek raxas sa xol bi dugal ko ci tàmbali ci moom yem ci moom kon nag asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, jërëjëf soxna Diarra sant nañu baax jërëjëf soxna Amsata yéen ñoo ngi lay jaajëfal Euh, yalla nañ suñu borom defal deg ak top kon mbokk yi li lañ leen jëlaloon fii ci e, salle bi kon ñing leen di jox dig dajje rek ci kanam inshallah wa wa dakhwana alhamdulillah wa salam alaykum wa rahmatullah inni khadimun nasaratura fi arim li maliki inni khadimun uxaadibu nasaratura